alors euh, ci wàllu diplomatie président Bassirou Diomaye Faye bi ñu ko falee ba tey mu ngi def le tour de la sous-région il a été en Gambie en Mauritanie euh, aujourd'hui il était en, en en visite de travail euh, et d'amitié en Côte d'Ivoire euh, mu mel ni moom il est dans une logique de continuité euh, de raffermissement des liens euh, diplomatiques des liens bilatéraux avec les pays Euh, frères de la sous-région et avec les chancelleries euh, occidentales euh, plus tard mais mu am une tournée du premier ministre Ousmane Sonko bu ñu annoncé dans les états de l'AES muy l'association des états du Sahel moo war a dem en tournée au Mali en Guinée Conakry au Bénin et au Burkina alors est-ce qu'il y a un problème de de de, de parallélisme euh, diplomatique est-ce que tournée boobu mënul joxe tamit beneen son de cloche par rapport à la posture du Sénégal ou est-ce que c'est bien concerté euh, c'est bien c'est bien coordonné euh, mën na tamit jëmale réew mi euh, kanam mën na gën a ibbi dem euh, li nga xam ne mooy diplomatie bi. oui moi en tout cas je considère que le président de la République bu demee Mauritanie dem Gambie dem Guinée-Bissau dem démb Côte d'Ivoire c'est une bonne chose parce que. on a intérêt nous tous les rapports de bon voisinage nga xam ne qui ont été entretenus par les pères fondateurs de nos nations ñu mun koo perpétuer la dernière coupe d'Afrique bi am en en en Côte d'Ivoire a montré à quel point les Sénégalais et les Ivoiriens on des ont des points communs point il a une une symbiose entre les deux peuples boo fa demee fekk fa sénégalais doo xam ni c'est un c'est c'est c'est c'est pas un Ivoirien donc loolu dañ ko war a préserver Même chose pour Gambie, qui est une enclave à l'intérieur du Sénégal. Mauritanie, tout le monde sait que nos parents foutanké, ñëpp am nañu mbokk en Mauritanie, ñëpp am nañu mbokk en Mauritanie. Donc président la République bu jëlee mesures yooyu dem ci ñoom apaiser tout le monde parce que régime bu bees bu ñëwee bëri dinañu jaaxle est-ce que ce sera la continuation est-ce que les mêmes rapports mais bu demee rassurer leen c'est une bonne option je considère que c'est une euh, par la CEDEAO qui est aussi un bon, j'ai entendu le président parler de la CDAO en, en Côte d'Ivoire, c'est une excellente chose. Et la CDAO, parmi les pays, les têtes de pont, Sénégal, Côte d'Ivoire, Tchilani, bon. Donc je considère que ça, c'est bien. Il faut le poursuivre. Bon, maintenant, un parti politique et un parti souverain. Moi, je pas essayer là de voir Ousmane Sonko ce qu'il fait à PASTEF. Ousmane Sonko, c'est le patron de PASTEF. Il a décidé d'aller voir ses amis en Guinée. Il a décidé d'aller voir moi ce qui me concerne c'est l'APR qui me concerne ce que fait le PASTEF ne me concerne pas sur ce que nous faisons bu doon tey am président Amadou euh, euh, comment il s'appelle ba Bassirou Diomaye Faye moo ko def mën naa jox appréciation mais lu may ciy métti. lu man. Mhm. lu ma ciy métti lu mooy bi ñëwee fii cérémonie de prestation de serment parce que Sénégal dafa am fu mu toll ci Afrique Sénégal dafa am fu mu toll ci àddina boo xoolee. Euh, président yi xam ne dañu accédé au pouvoir par par le putsch et adduna yëpp condamné ko bu ñu jógee di ñëw fii ñoom lañ tàccu te tàccu wuñ président ñoom ils ont accédé démocratiquement au pouvoir dama ni loolu il faut qu'on fasse doucement. il faut ñu il faut ñu baax a baax il faut ñu xool signal bu baax a ñu def attention parce que gis nga nos démocraties c'est vrai que nous avons de très fortes démocraties Sénégal wane na ci soubresaut yi. jàll nii ci élection présidentielle ak jafe-jafe ñu am ci jàll Sénégal taw c'est vrai que ñaan la ñaan bu ñaan bu graw am na ci réew mi parce que réew mi munoon na mënoon na tàng à tout moment te ñun ñu nekkoon ci gouvernement xamoon nañu mais yàlla sutural ñu renforce suñu démocratie mais il ne faut pas que ñu dormir sur am na ay actes ñuy posé mun na fragiliser le pays mën na fragiliser notre démocratie et ça la responsabilité de tout le gouvernement actes yu ñuy posé gis nga boo nekkee gouvernement boo nekkee président la république nga nekk premier ministre nga nekk ministre moomatoo sa bopp moomatoo sa bopp acte yi ngay pose yëpp dafay am euh, dafay am après euh, euh, lu ñuy wax day am conséquence sur ce que comment on perçoit l'État mais est-ce que mën nañu président Macky daf ñu doon wax ni ministre yi nañu def bu baax attention à leur déclaration à leur comportement et surtout dans nos relations avec les pays. mais avec, mais avec, mais, avec, mais, avec, avec est-ce que mën nañu dissocier. le premier ministre qui sera ak le président du parti. je ne crois pas que le premier ministre sera parce que premier ministre mënul génn réew. loolu nañ ko leeral. Euh, je ne pense pas que le premier mooy def parce que premier ministre mënul génn réew te am autorisation président de la république diplomatie président la république mooy responsable bi fépp fooy dem ba ministre bu fekkee ne amoo autorisation président de la république mënoo dem. donc visite boobu dama jàpp ne bu fekkoonte ni visite premier ministre la Ousmane Sonko. président de la République moo koy autorisé mais bu fekkee ne visite parti parti am la parti bu muy ñun suñu parti yëpp APR comme PDS comme Rewmi comme LDRSL euh, ñu ngi ci international libéral am ay réew yu nga xam ni mën la la configuration actuelle du régime elle est un peu particulière euh, on a un binôme un duo à la tête de de de de l'État un des membres du du du, du binôme Euh, buy dem au nom de ses fonctions politiques. Ah dans ces pays là est-ce que loolu mënul obstruer le signal avec nos partenaires techniques et financiers est-ce que loolu mënul euh, euh, gën a brouiller li nga xam ne nag moom mooy gis-gis bi ñu am ci ci. régime mën a vous faites preuve de manque de respect au président de la République. pourquoi parce que comment tu peux dire que c'est un binôme qui a été mis à la tête du pays. c'est un président de la République a été élu le 24 mars il s'appelle Bassirou Diomaye Faye. mais on a un binôme à la tête du pays attendez may ma ne ma c'est votre responsabilité. on a un binôme à la tête c'est daw lu may daw c'est un binôme qu'on a la tête du pays je le dis et je le répète c'est un binôme voilà aujourd'hui la configuration elle est particulière c'est un premier ministre fort c'est un premier ministre influent d'ailleurs tellement influent que bu nit ñi di wax sax euh, man parfois da tu te perds dans Ousmane Sonko Ousmane c'est la ah, vérité c'est un binôme dafa mel ni man maay man maay journaliste bi yaay invité. ah mais lu tax nga naan man président de la République dama ne la bu ñuy voté président de la République la ñuy voté et demain devant la nation c' est pas le premier ministre qui rendra compte c' le président de la République qui rendra compte ça notre constitution donc le président de la République il est le seul responsable devant la nation donc c' les actes que le président de la République pose que moi je jugerai c' pas les il applique il exécute une politique définie par le chef de l'État donc cette tournée ne vous inquiète donc, pas elle ne vous interpelle pas mais moi je te l'ai dit de départ Ousmane Sonko en tout cas selon la presse l'a annoncé dans son parti et il en a le droit d'aller voir ses amitiés politiques qu'il a en Afrique et dans le monde il en a le droit et tous les partis le font mais ça ça a distingué de la politique diplomatique de l'État si Ousmane Sonko interfère au nom et en ce moment là j'abuserai